ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu dolli ko xewul ak mujj moom ak njabootam ak sahabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam baa dina tukki mbokk yi tey jii ci fu bari ci àddina si ñu ngi waajal di fàttaliku yaari xew-xew yu am solo ci dund gi yonente bi salallahu alihi wa sallam yu am solo ci l'islam ci boppam te mooy li ñuy tuddee rañaan gi yàlla rañaane woon yonente bi salallahu alayhi walihi wa sallam ak yéegi gi mu ko yéegi woon waaye juliti sénégal dolli nañ ci leneen lu ñuy fàttaliku mu doon xeexoo bu mag itam te mooy feeñ gi ci sëriñ fàllu feeñ ci guddi gii rañaan gi ak yéege gi liñ ñuy fàttali moo di ne yàlla kat mën naa am mu teg ab jaamam ay nattu jaamam boo xam ne mi ngi ci aw yoonam tey sellal ni mu nekk ci aw yoonam mën naa am mu teg ko ay nattu mu dajee ki jafe-jafe waaye nag du ko seetaan du ko bàyyi liy wane loolu moo di ne yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam ñaar ñi ko gënoon na jàppale ci nit ñi dale na ñàkkandoo ci jamono yu jege muy soxnaam soxna Khadija ak baayam bu ndaw bi doonoon Abu Taalib ñoo ñi ko gënoon a jàppale ci nit ñi yàlla jëlandoo leen ci diir bu jege mu mel ne ko kuy bëgg a tumuranke mu nekkoon na génn boog màkka dem seeti yeneen dëkk xëy na mu am fa ñu ko nangul ñu mën a ànd ak moom mën koo jàppale mu dem fi ñuy wax taayif waaye ba mu demee taayif la mu fa fekk moo yées li mu bàyyi màgg ndax dañ ko topp di ko lor di ko wax wax yu ñaaw ba mujj daal mu mel ne sax dafa àgg ci ñàkk yaakaar ci nit ñi dafa àgg ci naagu ci nit ñi jamono yooyee nag mel na yàlla danaan ko bu fekkee nit ñi jàppalewuñ la bu fekkee nangu luñ la nanga xam ne man yàlla man du ma la seetaan du ma la bàyyi maa ngi ànd yow ci la ko defalee yaar yoo yi muy rañaane ko mu jóge màkka dem baytul maqdis jiite fa yonente yépp mu yéege ko itam nag ba fa ko soob woon ko fa lam ko bëgg woon joxaale ko fa julli juróom nga xam ne kon day mel ne yàlla da ko doon dëgëral di ko wan ne bu fekkee dem nga ba ci nit ñi amatoo ko la jàppale it na nga xam ne man maa ngi ci sewet maa ngi lay jàppale lu mën cee jàppe ne kon cee jële ne képp ku ne ci yoonu yàlla tey sellal lu mu metti metti metti yàlla da koy dimbale yàlla da koy jàppale waaye du ko seetaan du ko du ko bàyyi bu nu xamee loolu nag te muy liñ mën a jëlee ci ñaari xew-xew yooyu nga xam ne jullit ñëpp a bokk war nanoo xoolit luñ mën a jëlee ci xew-xew bii muy ganek àddina gu sëriñ fàllu ci guddi gii ak it rek képp ku baax bu nuy fàttaliku ay biram nun ca mën a jariñoo nin mën a jariñoo ci fàttaliku ku baax mooy di nafaraat ak dundam dina faraat ay jaar-jaaram dina faraat ay jikkoom ngir man koo roy ca jikko man koo roy ca jikko ku baax des koo war a roy waaye ci ay jikkoom lañ koy roye sëñ fàllu nag am na lu bari luñ ko mën a roye am na lu bari luñ ko mën a roye ci jikkoom dañ ci tudd rek yenn bokk na ci bëgg xam-xam bëgg niti xam-xam loolu bokkoon na ci jikko sëñ fàllu yi mu ràññikoo woon yi mu ràññikoo woon bokk na ci it ak tab walla tabe tabe gi mu tabe woon ku xam ku nekk xam ko ci moom waaye bokkoon na ci jikko yi ko mën a roy itam yu bari yi bokk na ci ak lewet gum lewetoon ku ko ne xam ci moom ak lewet bokk na ci it ak woyof gum woyofoon kon jikko yu mel nii ak yeneen yi nit ñi xam ci sëñ fàllu buñ koy fàttaliku war nañuy fàttaliku jikko yooyu te di ko ci jéem a roy di ko jéem a ci jikko yooyu ndax kat sëñ Fallou manees naa wax ne fi ko nit ñi taj bëgg giñ ko bëgg moo xam ñi jamononte ak moom moo xam sax ñi ko fekkul jamono ñëpp a maase ci bëgg ko ñëpp a maase ci fonk ko te loolu nag dëgg-dëgg nag ay jikkoom rek ñoo ko ko may jikko yu mel na yéenu tudd ñoo ko may loolu mu am ci nit ñi kon noonu itam war na góorgóorlu ba jéem a roy ci jikko yooyee noo ngi ñaan yàlla mu boole na ci ñi nga xam ne dañuy jànge ci ay tegtalam di jànge itam ci ay gaayam di jéem a jariñu ci ñoom di jéem a roy ci ñoom te bañ noo boole ci ñi nga xam ne luñ mën di gisit dañ koy romb jàll rek luñ mën di dégg dañ koy dégg rek jàll donc koy ñaan mu defal ñu àdduna ak àllaaxira musal nu ci sawara sàmmal na sunu ngëm ubbil nu buntu yiw yi soob nu ci ak njub mottali sunuy mébét may nu fanu gudd ak wér ak mujj rafet